Adja Kine la am ah maître ba di Kenya ñoom baalo xoolal fu mu génn ci sañse <laughs> waaye ña nga xoolal bleu la maye bleu jaune la maye def cuubam takk ay lunetam ak salaay waaye ba di Kenya ak mbay peex waay <laughs> xaaral ma xool ndax dinaa nuroo ma dikkee xaaral ma xool ñëw de xaaral ma wengal ko nii waaw baax na ma eh, dikkee maa ngi ñëw maa ngi dem nag. maa ngi dem fi nga xam ne moom mooy ci ci ca délégation officielle ba ci kër sëñ kër Xaadim Rasul de résidence bu mag bi nga xam ne yàgg nañ faa toog mille ba mille 2012 toog nañ fa ñuy ganale waaye nag tey bu ma demee dinaa xam ne ne président Ablaye Wade dinaa ko teewal danaa ko taxawal ci biir fi nga xam ne mooy Touba ba mu xam ne ne waa Touba nam mu nañu président Ablaye Wade ajaa xuja waaye soxlu nga may yónnee benn addiya yoo koy jiitul rek te nekk ca togg ya na cere yi saf kon daaw cant la berndel la d'accord xaaral ma woo sama téléphone Adja Khoudia waaw maa ngi koy débranché téléphone bi Mbaye Peex waxoon na ma ne naa ko woo allo waaw gars yi na ngeen fa leen toll moo jaañ faada yéen a ngi pare waaw pare pare leen yéen tamit dañu war a jóge si waaw d'accord waaw maître Sall yéen a ngi pare waaw baax na ko nañ tase ci corniche bi rek waaw nañ tase ñëpp buñ tase ba buñ tase ba buntu Mbàkke buñ taxaw ba buntu Mbàkke ñu taxaw ci corniche bi maa ngi woo léegi Mbaye Peex pour xamal ko ne délégation bi bu ñu ñëwee waaw bu soobee yàlla maa ngi koy woo maa ngi woo Mbaye Peex waaw salaamaaleykum alaaji Mbaye Peex Peex jàmm rek Peex sant Sëñ Saali bu wër sant Sëriñ toobaa di la gërëm ndax at bu nekk yooyu yooyu woo nga dalal ñu xale yoon bi yëgle na ñu ngi ñëw délégation bu mag nag mooy ñëw waaw bu ñu ñëw bu ñu egsee rek ñu woo la bu ñu egsee ñu woo kon nañu tase kër waaw bu ñu dugg see bu ñu dugg si Touba ñu woo la nga nga nga jiitu nga nga su ko defee nga waaw waaw d'accord kon niñ ko doon defee rek baaxantal jërëjëf peex mbokk yi maa ngi am mbégte ak contentement bu rëy gis naa nag xalif général kullu murid taxawaay bu rafet bi nga xam ne def na ko tey nag Touba kenn ñu ndax mosu ñoo sawal boo gisee fi ma toog ak fi ministre bi nga xam ne moo yor ministre de l'intérieur ki toogal Macky Sall toog xam nga ne man maa ko gën a jege sëriñ bi ndax boo ko nattee man ci suuf laa toog mooy wane ne suñu place ba tey ñu ngi koy am ci biir Touba ñuy wane ne waa Touba na ñuy dawalee rafet na trop ndax tey bu la neexoon na ñuy ayewtuñu waaye defuñu ko invitation yi doon ñëw ñoo ñëw. fañ doon toog ak fañ doon taxaw fa nañu yamale ba tey lii mooy wane na wax dëgg yàlla ñun am nañu cër di am ci ak contentement nag bu waaye nag li nga xam ne moom a ci jaaxal mooy nañu xam ne Sénégal coow li commencé na jog ndax tey boo ubbee journaux yu bëri ñu ngi wax na Omar Sarr président Abdoulaye Wade dafa am laam-laamee na day waxtaan ak gars yi ci suuf ah duma ci wax dara waaye nee na ñu de man dañu yéene pour ma yor parti bi loolu nag bu nekkee choix boo xam ne président Abdoulaye Wade def na ko dana nekk loo kam ne wax dëgg yàlla danaa changé taxawaay ci réew mi ndax boobaa dootuma doon militant simple dootuma doon ko xam ne ci comité directeur la bokk waaye koo xam ne dafay soxla pour réew mi ëllëg suba taxaw ci ndax secrétaire général la représenté maay coordinateur bi maanaam Abdoulaye bu joxee ndigal ne mënutul dem man maay doon candidat PDS kon bu karagee ma commencé nag wax ne waa Sénégal ma dikk ñaan néew lu ngeen di gis ndax boo nekkee secrétaire général coordonnateur parti da ngay war di génn di def ay manifestation di yëngal di tàngal di bokk ci ay débat di wax di wane na yow réew mi nañ ko soxla waaye toog na yoxos na yaat yasaar daay seetlu lañ ko keroog assemblée waxul ñu wax mu ne question de famille la ñu ne tekk bàyyi mu jàll waaye nag dafa jot pour ñu tàngal jikko ji nga xam ne moom la président Abdoulaye gis ci man ba ma coordonnateur bëgg ma nekk coordonnateur loolu la bëgg de yàlla ko yàlla def su ko defee nag Macky Sall bu bëggee naan neex fii ci PDS foo mu jaar sama loxo ndax ñun ku ñu tàllal loxo duñ la gàntu dañ waxtaan ak yow waaye ay condition kuy woote waaw mbay peex waaw ah ñun egsi nañu ah kon yow da ñoo yoxas ndax mbay peex dañuy waxante lu leer déet déet déet ba déet ba ma dégg ma mbay man dégg déglu ba ñuy dugg Tuubaa laa la wax ne bu ñu egsee ba Touba dañ la woo nga daal di ñu kii waaye ñun dañu ñëw fekk nga dem fay sa téléphone ah kon am nga loo nam yow bu fekk ah ñun daal waxuñu kenn dara waaye nag am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla mbay dafa am lu muy nuróol waa transhumant nag am na ci côté yu nekk waaye nag ñun ñu ngi sant ñu ngi sant yoonu Touba kay ñun ñu ngi gis ay njaaj ñu ngi gis ak suñu bët kay ay njaacaar na xam nañ yoon ba waaye dañu gisoon na dafa gën a rafet rek dañu egsee ba Touba woo la jotuñu loolu lañ xam ne xëy na da nga yoxu sa mbay daal xam nga loolu la li ne si xel yaa ko xam li ne sa xel yaa ko xam ak ni nga jëfee yaa ko xam man munoo maa toroxal munoo maa wax dara lu ma dépassé ndax tey président de la république Macky euh, Abdoulaye Wade dafa bëgg jël li nga xam ne mooy parti bi teg ko sama loxo kon jàppal na ma ne euh, futur président ngay waxal ku am ful ak fayda mbay peex coupel man kenn du ma ndax mbay peex waru maa gën a xam Touba bi dañuy xaar du ñu wommat moom xam nañ fi ñu waroon daje bi ñu ñëwee ba gis ñu ko dañoo dem suñu yoon ndax du may pexe ñuy tardel am na lu mu namm te am na lu mu bëgg bakk suñ saaleew waaye ñu xam ne dañoo déterminé wu ndax fa ñu toog tey ku xool tey ci délégation officielle bi fa ñu toog tey xam na ne jage na ñu sëriñ bi ñu ngi toogoon ci wetam waa parti démocratique sénégalais nekk ñoo xam ne dañu gëm seen bopp am fula ak fayda secrétaire général wala coordonnateur da ngay tàngal di génn def ay discours dem ci ay màggal ci ay gàmmu nit ñi di la gis waaye doo toog dana yàcc ni nga sar sa sar gàmm maa ngi nii daw man Côte d'Ivoire waaye dafa mel ni maa ngi woon d'Ivoire ndax cooli fa la jolle ba président Abdoulaye Wade jël décision ferme waaw maa xew dix Adja Koudia Adja bu neexoon bañ ne ma dikka ñaa candidat élection jot ñu ne ma dikka ñaa moo gagné ak parti démocratique sénégalais Adja Koudia xam nu ma duggee palais dama naan cakas déedéet du ma ne gin gin de ne waa cakas Adja Koudia wengal ne waa cakas Adja Koudia teg ci kaw newaat cakaas door en arrière xool samay xarit bakk sëñ saaleew ku dul fàttali ku dem ba sëlëg nag doo ko xool laay dégg président de la république son excellence maître Madické Niang yàlla sañ lu nekk ci bésu màggal bi loo fi ñaan mu am loolu dalaa koy ñaan ci suuf yëkkati ko ci kaw Adja Khoudia la première dame Madické Niang la premier monsieur ci wet gi mbay peex li nga bëgg xam nañ ko ba sëñ saaleew